Touba googu ñaari malaata leen dese yoo xam ne amee nañ jàngoroy coronavirus suba ak jàmm ñoom ñaar ñëpp ku ci ne ñibbi sa kër ndewér nañ bu baax a baax tey jii la ko kilifa yi xamle ci tournée boo xam ne amaloon nañ ko ci teewaayu sous ba di Mansour Diallo ma Diop fii lekk ñaari fan Touba dootul amati benn cas bu Covid 19 ñaar ci fukk ak juróom-benn yi desoon ca centre de santé bu Daaru Marnaan dañ doon saytu seen wérgu yaram sous préfet bu Ndam Mansour Diallo di wax ni am nañ tan bu baax te sax dinañ dellu seen kër fii lekk ñaari fan. tey jii nag bu ñu egsee fii yéen yéen a tax bañu ñu mën a wax victoire ndax kat jamono ji may wax ak yéen ñaari nit rek ñoom ñoo nekk ci centre de santé. bu Daaru Marnaan te sax nag dinañ dellu seeni kër fileek ñaari fan rek. dans les prochaines vingt quatre heures. leneen kay loo xam ne fa la njaaxare bi nekk mooy yenn ci askan bi di yeewoo fii ci Touba te am jafe-jafe ngir lu ñu dundee su préfet di xam ne ni bis bu yàlla sàkk ñu bëri ñooy ñëw ci bërëgëm boobu di sàkku ci ndimbal naka noonu sax la doon dalal ni ngi tey association des opérateurs pour la développement économique de Touba di ADOP ñu indi woon ci lu toll fukk ak benn ci million